ci tournée bi ñu doon amal ci biir Mbàkke kuréel gi lëkkale ndaw ñu nekk ci biir bokk gis-gis doon amalam ndaje ngir waajal élection locale yi ñu dëgmal farando Pape Diop bi ne takku nañ ngir gagné élection yi ci biir département bi. élection locale yi signal la pour moom élection locale yi di ñëw signal la pour Macky Sall déjà dax na ko ñetti yoon xaw ma ñaari yoon. ñemewul parce que xam na ne bu dem ñu koy fët c'est simple xam na ne bu ñuy dem élection ñu koy fët mais ñu ngi koy xaar moo tax ñun tamit ñu jël suñu matuwaay teel a jóg. dugg ci département yi gën a wax gën leen sensibiliser pour que élection yi di ñëw mu nekk premier signal pour que moom day dem. ñoom ndaw ñooñu daal di profité ci seen ndaje mi ngir ñaalu doxalinu njiitu réew mi ñu jàpp ne sax yéene gi mu am ngir tabbu maire bu Ndakaar par décret dafa dëppoowut ak yoon. Macky Sall amul sañ-sañu di tabb ndax loo xamante ni yaakaar naa ni ngir nan la boo gisee mu bañ a dem euh, élection di dax élection yi ay nit yoo xamante ne xa nañ bu ñu demee daan nekk bokk ci moom. kon nag man tey bu fekkente ne xam na ne tey dafa bëgg tabbu seet ku ko neex mu tabbu ko loolu mun tax mu gagné maire Dakar nit ki da ngay am ngor da ngay am kóllëre wax loo xamante ne ni tey ji askan daan la mën a fal ñu fal la waaye du jël décision pour que ne yow lii mënoo gagné Dakar mënoo gagné Touba tax nga bëgg maanaam forfaiture pour que daan ay nit yoo xamante ne pour loolu loolu c'est pas tout normal. ci tolluwaayu réew mi bokk gis-gis ne ngi ci ginnaaw ñoo lànk ak mbooleem kuréelu société civile ngir aar intérêt askan wi.